bayti fi Cheikhul Xadim yanoo woon liggéey bu rëy bii léggéey woon ko boroomam léegi ko sangam ba diante sallallahu alayhi sallam waaye noo ngi ziyaare bu baax ki fi nekkal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di sëriñ Muhammadul Muntaxaa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool lool te wéral ko ba ay yéeneem ci liggéeyal maamam Xaadimu Rasuul mu def ci koy njortu ànd ko ak taalibe yëpp noonu lañ koy ñaanale itam borom pàkk bii ñuy àddoo ci biir këram di sëriñ Ahmadul Muxtaar ak mboolem njabooti buntu kër yi Serigne Mouhamadul Moustapha yëpp ak jawrinam nag Serigne Cheikh Mbacke Madina ak mboolem njabootu sëñ Mbacke Madina gi yëpp di ziar bu baax Serigne Abdourahman mi toog jotaay Serigne Cheikh Amadou Mbacke seen sët ba Serigne Moustapha Mbacke Mouhamad di ñaanal Serigne am ni Modou Mbenda sunu borom yàggal ko moom it te wéral ko <clears throat> ak njabootu Maam Cheikh Ibra Fall gi yëpp ni ñu ko baaxoo defee rek saa bu demee ba weeru tam xarit wi teru commission culturelle bu. Euh, bayti àndandoo ak mboolem commission culturelle yu Daaru Xuddoos yëpp ngir waxtaane bis bu màgg bu rëy bu sell bu nekk sunu kanam mooy bis bi nga xam ne ci la Cheikhul Xadim radiallahu anhu ab liggéeyam mate woon mu dëkkaale si woon ak boroomam te taawam bu baax ba di Cheikh Abdul al Karim indi woon ko ci dëkk bu sell bii dañuy fas yéene waxtaan màggal gi sëñ Manouche njëkk a màggal message ba mu ci joxewoon ak màggal gi nga xam ne moom la mujj màggal na mu ko organiser woon ne bu ma fi fekkaatee ci organisation boobu yi la koy bàyyi dootu ci soppi dara. màggal gi nag jële nañ ci ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Diop kawlax bàyyi Maxtaar moomu ci mag ñi mu sëñ Manouche la bokk mu wax ne màggal gi bi ko Cheikh Manouche Karim di woote di ci wax. nee na booba ñoom dey ay dongay sëñ Modou Moustapha lañu yoo nga xam ne daare jëm wel lañ newoon di fa liggéeyal sëñ Modou Moustapha mu woo leen ci këru bayti gii ñuy waxtaane nii nee na ñu war ay néeg ci kër gi nee na bisub gaaw fukki fan ak juróom benn ci weeru tam xarit la ma woo waxtu nee na takkusaani suuf ne ma maxtaar jo demal see wool ma bàyyi ma demal seetal ma ko boo fekkee nga wool ma ko nee na ma dem këram ñu ne ko daal nekk ci ab tukki ci réew mi nee ma del si wax ko sëñ Manu Soa nee na mu ne ko toppal ma ko foo ko fekk ci ne ko daa koo soxla sëñ Maxtaar nee na wër naa wër nañ sëñ Masamba ñaari fan fekk ko Louga waxtu kon fukki fan yaak juróom ci weeru tam bi lañ gis sëñ Masamba nee na mu julli timis ba def ay lawraatam ba noppi nee na ma àgg suuf nuyu ko ne ko sëñ Moussa la soxla nee nga wuy si ko Touba nee na ba ba warukaay yombut nee na ma war watiir ba ñu wut si Touba nee na may dox topp ca nee na bi ñu agsi guddi na lool fekk nañ sëñ Moussa Fatou sëñ ma Massamba itam li muy doon doon kilifaam ci zahir di bàyyam itam aggul këram wen gi ne woon ci wetu jàkkal ko sëñ Mbàkke Mohamed gii wen gi woon foofu ci wetu jumaa ji nee na foofa la fanaan sëñ Maxtaar nee na ma ñëw ci këru bayti gii néeg bi sëñ Moussa fanaan nee na ma sukk ca buntu néeg ba ñemewumaa tëri ñemewumaa àggale guddi gi ca donga ya nee na bi sëñ Moussa yëngoo ci yoroor bi maanaam mooy bi mu mu xool ci buntu ci penku bi ndax nee na booba Tuubaa mel ni tey foo xool sa bët jàll mu seen sëñ maxtaar sëñ Masamba fa mu toog nee mu ne maxtaar Jóob ñeele ca buntu jumaa ja ñoomu nee na ma ne ko sëñ ma sàmba day ñëw bi fekk nga fatu agul këram mu fanaan foofu nee na ma ne ko demal wol ma ko nee na baa koy boo fekk naa fa alhaaji Moustapha Jóob njëkk sëñ Baara Amar ak sëñ ñoom reloo nee na ma ñëw woo sëñ Modou Moustapha ma ñëwoo sëñ ma sàmba na ñu ànd jiitlante ba si ci këru bayti gii nee na Cheikh Moustapha gàttandu ko joxoñ ko lal bi bëgg mu toog ci sëñ Masamba teg loxoom ci lal bi toog fi suuf Cheikh Moustapha toog fi wetam jàmmanteeg moom ab diir génne aw kayit yi poosam jox ko nee na sëñ sàmba jàng ko ba mu àgg mu ne teg ab diir waxut Cheikh ko xanaa xam nga woote bi da mu ne ko waa ah, Mbàkke sama xel koo faayoon rek ne ko mu ne ko kayit wi de ba ko borom Tuubaa bindee ba mu àgg yow mii la woowoon woo ma jox la ko yow bàyyi ma sàmm nga jàng mu àgg delloo ko ko mu jox ma ko ma jàng ko ak di ko delloo mu ne mënu soit denc ko ba waxtu jot xanaa waxtu wa de agsi na nee ma ne ko waaw Mbàkke mu ne ma xanaa ci at mii la ma waxoon de nee na ma ne ko waaw mu ne ma xashrira muharram xanaa ngoon la sëñ Maxtaar Jóob neen laa njëkk a dégg xashrira mu ne ko doxal jiitu ma ci jumaa ji maa ñëw fekkoon na sëñ Moussa waxoon képp ku yaakaar sëñ Tuubaa soxla nee na nee na Cheikh Moussa génn ci këru bayti gii di dox wuti jumaa ja nee na ñoom donga yi ñu jàppoo seeni loxo nee na ba ku ñu wax Baye Cheikh Jóob moo nekk seen général ñoom donga yi jam weli yooyee moo leen jiite nee na Cheikh Moustapha di dox ci digg bi ñu sikkar sikkar di boobu yi xam ne mag ñi ba nëgë ni moom lañ ko yëkkati ba taayif rek fan yi bërki dem rek maa ngi dégg ma am gone yu ko fa yëkkati waaye bi ñu agsee nee na fii sooroon mag bi nekk tey fi la Cheikh Moustapha yéeg ànd ak mbooloo mi waaye nee na boobu ñoo xam ne ab sooroon dana fi nekk garabu loora nee na boobu moo fi sax nee na sëñ Moustapha wàcc daal ne ana bàyyi ma sàmba sëñ ma sàmba séen ko ñu waaxu daje ñu indi ñaari sees sées Cheikh Moustapha joxoñ ko benn bi bëgg bàyyi ma bàyyi Masamba toog ci sëñ Masamba teg ci loxoom toog fi suuf Cheikh Moustapha toog tiim ñaari sées yëpp ne ana Ibrahima Sare mu ko maa ngi nii mu ko yéegal ci kaw bank bee di jot su ma waxee daal ne ana ndëri mu ne ko maa ngi nii bàyyi ndëri moo daan wër naan ciment ba tooy na ba ñu tabax jumaa ji ci jamono sëñ Moustapha ba ci sëñ Fall mu ne ko yéegal ci beneen bank bee di wax su ma waxee Ibrahima Sare wax waaye sëñ Maxtaar wax na ne keroog ñeenti xibla yi bu sëñ Modou waxee ba ñoom ñaar ñoon jottali wet gu ne la fay jottaliwaat ndigal li mat na fukki nit mu Moussa génne kayit bi suñ tubaab bindoon ndigalul màggal gi nee na wane ko ci ñeenti xibla yi lemaat ko dugal ko ci poosam ne Ibrahima Sere nuyul ma bindee fi su ngeen gisee ma woote woote bii kayit wii ma wane léegi man Modou Moussa lem ko dugalaat ko ci sama poos sëñ Touba ko bindoon seerloon ko bàyyi ma sàmba mii moo tax ma woolu ko mu ñëw tol waaye di seer la ko war a fekk ndaw li Louga la ko fekk daal ne Ibrahima Sere nuyul ma bindee fi daal ko borom Tuubaa moo ne jamono bi tolloo fii na nga ma dajaleel saa mbooloo wax leen ni su bii jage seetee fu nekk ci àddina na fanaan si Touba soxla su bañ fanaan si Touba yàlla def ko ci benn soxla ci guddi googu gi Ibrahima Sere fi borom Tuubaa moo ne ma saa bis bii dikkatee rasul rabbul alamina ak ahlu badrin ak bii muxarrabiina yëpp fii la ñuy bokk fanaan fi tuubaa kuñ fi bokkal fanaan nag seet nga wecc ci bàkkaar waaye neen kuñ fi bokkal fanaan nag jàng alxuraan ak xasida ak salaatu bi ak bernde boobaa ngay doog a set ci wecc ci ci bàkkaar waaye doo fanaan lu neex mën a bëgg a ci bàkkaar Ibrahima Sare neel bindee fi kuy ñëw na dugg ci saxaar gi te tontu ko maanaam mooy joxe paas kon bëgguloon kuy màggal si fi nga war a sete nga fi ñëw di fi taqe di buurle la gone yi daan def bu njëkk Ibrahima Sare neel bindee fi képp kuy màggal si te romb ku bëggoon a màggal si te amut paas la mu defoon ci jibaam mu poosam maanaam muy addi ji mooroon a siyaare na ko jox jëmm joojee ma bu mu ko ñëw màggal ñëw Tuuba soxlawuñu alal yi ci guddi gi róoyi la ñu ramm maam Maxtaar day message bii mooy bi mu njëkk a wàcce te noonu la ko waxe noonu it la ko mag ñooñee binde woon kon loola lu am solo la mu teg ci na ba noppee nag ci la digle nag ñu wàcce ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett wut ñeent ñu mokkal alxuraan ku ne toog ci benn koñ ci rawdatu bi ku ne jàng sa kaamilu bopp wutaat fukk ak ñaar ci li war mihraab bi wutaat yenn fukk ak ñaar ci biir jumaa ji digle nag jàng jës boog mooy boog mu xaddimaat ak miimiya ñay des yor kur def salaatu ala nabi kon noonee la taxawal woon màggal gi joxe message boobu kon loolu mooy màggal gi sëñ Moodu njëkk a màggal gi mujj a màggal nag ndax dëkkaale ak boromam muy màggalu 1944 nga xam ne màggalu 1945 fekku ko fi loolee da ko defoon li ñuy wax ay commission yoon wi ñëpp maase ci liggéey ku ci dut maam Cheikh Rahma ma nga xam ne ak sëñ Issa Diène képp koo nga xam ne daal jiitu woon nga lu jiitu woon 43 màggal googee liggéey nga ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma taawam ba nag moo xalaat doxalin woowee dem waxtaan ci ak way juróom sëñ mënu Moussa Al Karim Cheikh Moustapha rafetlu ko sëñ Cheikh gaaral ko ko teg ko ci loxoom ndax sëñ Moussa moo jiite moo gi te mooy xalifa sëriñ Cheikh woon chronique attributive des personnalités devant diriger le pèlerinage annuel de Touba loolu nag mooy toftale kilifa yi nga xam ne maanaam ñooy saytu bis bu màgg bii di yoonu murid bi maanaam mooy li nga xam ne moo gën a màgg gën a mag wala bokk na bokkoon ci li gën a màgg gën a mag ci yoonu murid bi nga xam ne mooy tax nit ñi di jóg di fa dem pèlerinage nag day firi aj aj la ko lañ koy firee waaye li sëñ Cheikh jublu woon moom mooy màggalu Touba gii ñu naan ko màggalu Daaru Xudus di bisu sëñ Touba loolu nag la Serigne Cheikh wax ne ñi ko war a organiser nii lañu ñu war a mel loola nag yow jàngat bi nga ci war a def gannaaw boo dégloo wax ji ba noppi mooy nga xam ne kon tey jii gannaaw mbind du raaf te ci démb lañuy sukkandiku ngir doxal tey nga gis ne kon Serigne Cheikh la na nasoon mooy loo nga xam ne yoonu murit wépp la ko nasaloon muy patrimoine yoon wi la nii lañu koy jiitee nii la ñu koy doxalee nii la ñu koy gérer lenn lu ci nekk lu ne lenn lu ci nekk ña nañu koy yore ak ka koy yore ak fa mu koy yore ak na ma koy yore ak ña ma koy yoral mu def ko nag ay ay bànqaas maanaam mu séddale ko ay commission mu indi nag bànqaas bi ci gën a mag da ko def ay kër karaan mu def président général maanaam ki jiite léppi màggal gi di Cheikh Amadou Moustapha Mbacke mooy ki nga xam ne moom la ñuy daw di ko wuti moo nekk ca bopp ba moom la ñëpp di déglu moom la ñëpp di topp muy Cheikh Amadou Moustapha Mbacke chef spirituel euh, religion de la confrérie de Mouride et fondateur responsable moral des pèlerinages nga xam ne dafa wax ne Cheikh Amadou Moustapha moo wane yoon wi moo wane ne intérêt murid yi fii la ne matérialiser ko indi fi sëriñ bu mag bi tiital foncé suuf si dëkk fi dëkkal si fi njaboot gi daal ne sunu anala sunu alal a ngi nii kon nañu ko yore waaye nag loolu moom la ngay xam ak la nga cay déggee du Cheikh Ahmadou Moustapha du tur bi rek doomi sëñ Touba ak soxna Aminata Lo déedéet mooy képp ku fi nekkal sëñ Touba place booba yaa koy tooge mu Moustapha mooma la ñuy wax ka topp ci moom di premier vice président alxaaji Mouhamadul Fadil Mbacke di rakkam ji nga xam ne moo sës ci moom rëkk moom lañ ci sësale woon nga xam ne moo topp ci Cheikh Amadul Moustapha ñu toftal ci sëñ Fallou sëriñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi ak sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ak sëriñ Saalihu Mbacke ak sëriñ bu Mbacke waaye nag bañ jógee ci loolu nag. ñu def Cheikh Mamadou Bachir Mbacké directeur général de la tribune d'honneur officielle nga xam ne maanaa tribune bu mag bi nga xam ne kilifa yëpp fa la ñuy nekk muy lislaam yi yooyu yoon wi ak kilifay aada yi Serigne Bachir Mbacké waju Serigne Mountakha mi ngi ci jal bi moo ko yore di ko saytu moo yore tribune booba yore ña ko yore moo fay dogal moo yore lépp directeur général nag directeur général honoraire nga xam ne moo topp ci Cheikh Abdoul Bachir ci directeur gi comme ni Cheikh Amadou toppe ci Cheikh Amadou Moustapha Mbacke ci président ba kooka nag directeur général adjoint honoraire bi mooy alxaaji Mamoun mbakke moom maam Cheikh Anta maanaam mooy kaca topp maanaam moom leen toftal ci Cheikh Amadou Bachir ak kan sëriñ Modou Awa Balla Mbacke taawu maam Thierno ak sëñ Cheikh ak sëñ Modou May moom ma Massamba mu am nag directeur général actif mooy ki nga xam ne mooy dox yëf moo koy waaxu ngir li ñu war a saytu ci màggal gi ngir ñoŋal ko baaxal ko toppatoo ko ba bu nit ñi teewee Cheikh Amadou Moustapha di président général Cheikh Amadou Fadal di vice président Cheikh Amadou Bachir di directeur général directeur général actif pèlerinage bi nag mooy ki koy dox di ko wax di ko lijjanti mooy taawam bu baax ba Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma nga xam ne post yi kon moo yi jiitu nekk ci kaw waaye kan moo toppoon ci Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma rakkam ja Serigne Mbacke Madina ku ca toppaat Serigne Mbacke Madina moo Modou Baara Mbacke ak sëñ Abdoul Aziz Mbacke ak sëñ Abdoul Karim Mbacke ak Serigne Sadibou Diop bu Ngumba Ngewal directeur général nag des service des réceptions moo nekkoon Serigne Modou Xabbaan Mbacke Serigne Takko Mbacke Serigne Modou Farmata Mbacke Serigne Ibra Mbacke Ndar Serigne Cheikh Atta Mbacke responsable de mausolée ki yoroon barabu Serigne Touba bi mooy Serigne Mor Soxna Diop. dirigeant de lecture coranique yi nga xam ne bu doon jamono ji ñu yore commission culturelle yi toppatoo bi ci bis bi di bind moo nekkoon Serigne Mbacke Kandi Bousso ñu ca toftaloon adjoint yi moo nekkoon Serigne Modou Bousso ak Serigne Madiambou Silla ak Serigne Modou Makhtar Alelo dirigeant de lecture de xasaayit ki yoroon njàngum xasida ma moo nekkoon Serigne Mbacke Diouf. sëriñ Mouhamadou Touré sëriñ Aliou Sey ak sëriñ Aliou Ñaan comité de restauration ñu yoroon wàllu waañ wa ak xeet yooyu moo nekkoon sëriñ ñoom reloo sëñ Mat Daam Diop sëriñ Fàllu Diop Mor Farmata standing islamique ba bu doon tey ñiy leeral nit ñi exposition bi ak di leen waxal maanaam discours sëñ Moussa yi yi mu daan jàllale ña yore loola mooy sëñ Mat Dem bu njaareem sëñ Modou busa taaw sëñ Mbàkke Boussa ak sëriñ Moulay Boussa ëttu diiwaan muy ëttu sëñ Moussa itam ko jiite woon nga xam ne moo nekkoon président ARN ba mooy sëñ Mourou Moussa Fall taaw maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Sarr doomi ak sëñ Bay Falloo Ndiaye moom sëñ Daaru Xasan ak Serigne di Jaal Seck ARN sëñ Mourou Moussa Mbacke ba tey Serigne ma sorong sorong Serigne Bay di ba Serigne Saliou Fall Mbaaxaan Diop Cheikh Yaaba Diop Sidi Ndiaye Albouri Elimenan Fall sëñ Cheikh Fatako Diop ñooñu itam ba tey bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo yoroon loolu ak sëriñ Maxtaar Alelo ak sëriñ Yoro Silla ak sëriñ Aliou Aydara commissaire arène sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke moo nekkoon sëriñ Baydi Ba addu seen sëriñ Cheikh ko Diop micro centralu màggal googa 44 sëriñ Mor Joojo Fall moo ko yoroon directeur mouvement ba moo nekkoon sëñ Aliou Mbacke sëriñ Cheikh Oumy Mbacke moom Cheikh Amadou Fadel directeur réception personnalité moo nekkoon sëñ Abdou Niane sëñ Chérif Lo sëriñ Taïba Touré màggalu 40 ak sañ mun soo bi noonu yi la ñu ko doxale woon nga xam ne ñëpp yoon wi liggéey nañ ci yor ko Cheikh Moustapha wax ne bu ma fi màggal gi fekkaatee noonu yi laa koy bàyyi mu doxe noonu far yàlla dogal fekkaatu ko fi kon loolu da nga ci dégg ne lii Serigne Cheikh Nassone patrimoine yoon wi lu am solo la alhaaji baara bi mu doonee xalifa bi mu ko gisee dafa wax ne Serigne Cheikh de lii mu ñu andiloon du woon sax ak màggal rek buñ doxale woon yoonu murid wi ku fi doon xalifa Serigne Touba doxale ko noonu ku ne gis ci boppam dangay ngay noppalu noppale noppale Cheikh Moustapha mi dafa amoon ndigal lu wér ci Cheikhul Khadim ay ndigal yi mu ko batale woon waaye ki taxaw taxawaay bii nag dana yellu ñu wax ci moom mooy kan ndax Cheikh Moustapha mii damay faral di wax ne ngir nga waxtaan ji soo laajoon sa bopp ñetti laaj yi te tontu ko rek ci lu mat da mën a xam tuuti ci kan mooy sëñ Moustapha ñetti laaj yi mooy ban bi ci njëkk mooy tubaab bi yoroon sëñ Tuubaa lépp fanweeri at sëñ bi nekk ci loxoom tubaab yi yor ko fu leen neex jëme ko keroog bi mu dëkkaalee ak borom fekkoon tubaab bi mënoon na cee jot ba yóbbu ko France denc fa sëñ tubaa ndax tubaa dana mel nii mu mel déedéet ndax wëlëru tubaa ak nii tubaa mel nekk fi sëñ tubaa nekk la waaye feneen suñ tubaa nekkoon tubaa mooy mel noonu ñaareelu laaj bi gannaaw sëñ tubaa bu fekkoonte ne amul woon ko taxaw nose yoon wi ba murit gépp àndandoo ci benn waaw di fabandoo di tegandoo ba matub daarul moxti amut boobu daaru salaam amut boobu daaru xuddoos amut murit gépp ñoo àndandoo di wéyandoo su ko fi war a nekk sëñ Tuubaa rek lu mu wax ñu def ko te loolu yi léegi sëñ la ndax murit gi dana mel nii mu mel déedéet loolu itam kon ba tey du ni mel jumaa ji bu ñu négoon ba ay 1900 nangam wala atum 2000 ñuy doog a seet fu ñuy teg jumaa yi ji ndax dëkk bi dana mel nii mu mel déedéet Cheikh Abdoulahi sëñ Abdoulahaati daan wax ne waxtaan waxtaane Cheikh Muusaa doy na ci nee na moom sëñ Muusaa mi sëñ Tuubaa yar sëñ Fallou sëñ Basiiru sëñ Baara ak moom sëñ Abdou Lahad mi sëñ Moussa tàmbalee yar ba ci sëñ Mourtala mu ne soo xoolee mënoo xàmme yarub sëñ Touba ak yarub sëñ Moussa daal di cee teg lépp na di sëñ mu ne kon waxtaanoon kon loolu doyoon na ci sëkk waaye nag Cheikh Ibrahima almashan yi dafa bind ci bind ci mag ñëpp waaye daa bind nag dinu jàngal sëñ Manu Sawa ngir nga waxtaan ci nee na boo sukkandikoo ci lii dana dooy sëkk ñu dégg la ngir ki ngay bëgg a jàngale mooy kan bi sëñ Touba nelawee dëkkaale ak boroomam feesoon dell jamono nit ñi jaaxle almasi dafa bind ñu jàngal sëñ Moussa daal di ne laxad kaana rawdul ilmi an yatahajama wa kaada binaaul majdi an yatahaddama mu ne sardeeb xam-xam xaw naa dammuton boobu kon mu mel ne mbopp tabaxub tedd nga itam xaw naa mab maanaam bi sëñ tubaa nelawee dëkkaale ak boromam nee na xam bu fekkonte ne ab jardin la nee na dammutoon na boobu kon mu mel ne mbopp kenn xamatu ko nee na tedd nga bu doon la ab tabax la mab bu na ba boo ko xoolee doo mën a xam ne fii kat ab tabaxa a ne woon ñu ne ko lu tax loolu am mu ne isxaarubat shamsul huda wa takawarat wa laylul hawa bin naasi aqbala muslima mu ne jantum jub bañ xamoon kat moo suux dëkkaale ak boroomam nee na jantum jub ba ñu miinoon mu fenkoon di sëñ tiim ñëpp leeral fépp moo sox suux dëkkaale waat ak boroomam nee na bi loolu amee nag nee na nag wa zilzilan naasi silzalan shadidan nee na wa silsila silsaalan shadidan jamia man alal ardi fatadarrama nee na nag jantum njub boobu yi nag nee nag ba loolu amee nag nee na nit ñi nag yëngutu yëngutu bu tar boo nga xam ne nee na nag bi nit ñi bu tar nag nee na nag lëndëm gu ñuul kukk nag dëgmal si siwaat nit ñi aku njàqare ak wañse guñ xamut fu muy yem nee na ci jamono ci jamonoy tiit googi ci jamono lëndëm googi njub gi dem njàqare daal di fenkaat tar lool ci jamonoy jaaxle googu nag nee na ci jamonoy lëndam googu nag xam ne njub gi dem na xam-xam dem nit ñi jaaxle amatuñu yaakaar nee na jamono jooju nag ata Mustafa badrul buduri mujaddida wa fajjirul huda min jaanibayhi tabassama nee na jamono jooju nag la sëñ Moustapha nag ne tëll nag ñëw doon weeru weer yi beesalaat li nga xam ne lépp Seexul Xadiim bàyyi woon na ko fi nee na fajaru njub gi nag daal di ñëw fekk ci wet yi yëpp ñu ne ko waaw sëñ mënu Moussa moo miy ñëw mel noonu yi mooy kan ba tey boo ñu gënee loolu li ñu ngi jël almachanr te tegaat ca ne Cheikh Moustapha mu ngeen di laajkat xadiimu xadiimil Moustapha wabnihi lesi bihi xarraayinal kulli lama taqaddama nee na Cheikh Moustapha moom yi ngeen di laaj bëgg koo xam nee na mooy liggéeykatub ki liggéeyal yonent bi sallam maanaam Cheikhul Xadim mi liggéeyal yonent bi sallam Cheikh Moustapha mii ngeen di laaj mooy ka ko liggéeyal tey nee sëñ Tuubaa mooy baayam te nee na mooy doomam ji nga xam ne xolum ñëpp ci moom Cheikh Moustapha la sedde kañ la xolum ñëpp sedde ci moom bi nga xamee ne jiite na mbooloo mi tooge ca lal ba wóotu Cheikhul Khadim tooge jitaayub sëñ Touba di xalifa la xolum ñëpp sedd ci moom mu tekkee ne sama liptina sama liptina il majdi këhlan wa yaafian fa arba wa azra bi lësi xabluhu sama nee na tedd nga bu doon ne ab tabax la moom Cheikh Moustapha ba mu nekkee tuur tànk ak maanaam booba la ko booba la ko raw moo tax mu ne tedd nga bu doon ne ab tabax la nee na Cheikh Moustapha ba nga nekkee tu tànk ak ba mu nekkee mag kowee na tedd nga fuuf raw ñëpp nag gàcceel ñëpp ci jikko yu tedd yu daje ci moom ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon te kowe Cheikh Moustapha gàcceel na leen ci lim am moom ci ay tedd nga ak jikko yu rafet tax mu ne kon fa akrim bihi min kaamilin najli kaamilin wa min aalimin xat kaana ala wa alama nee na yéemal tedd ngay Cheikh Moustapha te teral ko muy ku mat sëkk di doomi ku mat muy Cheikh Ahmadou Bamba muy sëñ Moussa moom yi nee na doomi ku mat la di doomi ku tedd di Cheikh Ahmadou Bamba mooy doomam nee na tukkee ci boroom xam-xam boo nga xam ne kowe na te xam lool mu tegaat ci ne sara sikruhu fi naasi charxan wa maghriban wa an jada lama an agaara wa atahama nee na moom Cheikh Ahmadou Moussa moom yi de aw turam tasaaroo na ci fépp penku ak soow ak najju ak tuxam ñëpp xam nañu ko Cheikh Ahmadou mu tegal ci ne fa minhu staxaara badru xusnan wa rifaatan wa rawdu rabii bahjatin wa tabassama nee na Cheikh Moustapha day weer bi li muy rafet rafet li muy kowe kowe nee na li muy leer leer nee na leeraay ba ak rafetaay ba ak kowe ga lépp mi ngi ko abbee ci sëñ Munu Moustapha weer bi leeraay boobu mu leer ak rafetaay boobu yi mu wéyal ba tey ne Cheikh Moustapha fa minhu fa minhu staxaaral badru xusnan wa rifaatan wa rawdu rabii bahjatin nee na weer wi li muy rafet rafet li muy kowe kowe li muy leer leer nee na leeraay ba ak rafetaay ba ak kowe ga lépp mi ngi ko abbee ci Cheikh Amadou Moustapha nee na sardeeb lool li itam na muy rafete boo ci duggee ba gis tóor tóor yu naat ya lool nee na gis tóor tóor ya naat lool feex lool nee na loolu lépp sardeeb mi ko abbee ci Cheikh Amadou Moustapha la ko abbee tax mu ne mataa talxuhu talxal makaarimu kulluhum wa saadafat minhu lil makaarimi aylama nee na saa boo dajeeg Seex Moodu Moustapha rek na nga xam ne daje nga ak mbooleem xeeti tedd nga yi ndax mbooleem tedd nga yëpp mu ngi daje ci sëñ Moodu Moustapha kon maanaam saa yoo jógee ne da ngay wuti tedd nga nee na nga jóg dajeeg sëñ Moodu Moustapha Cheikh al Machar nee na mën ngaa wàññi ko te nee na mën ngaa waat ne nga ak mbooleem tedd ngay sang yëpp ndax daje na ci sëñ Moodu mu teg ci ne ala annahu fil ba'si ax jala day xama nee na day boo ko doon natt moom sëñ Moodu Moustapha ci wàllu ñeme akuk njàmbaar nee na Cheikh Moussa gàcceel na gaynde moom maanaa gaynde kenn du ko tëkkalik sëñ Moussa li muy am fit ak li muy jàmbaare jàmbaare nee boo ko nattee sëñ Moussa Cheikh Moussa da koy gàcceel kon loolu almasi def ko bind doon ñu jàngal sëñ Moussa mooy kan nga xam ne kon moom lii rek doyoon na sëkk ci kon bu ñu ko doon jàngale kon xam naa dañuy wàcce foofu kàddu gi di sant ñëpp di jéggulu ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa